interpellation yu bari yi ñu nemmeeku ci taskati xibaar yi ak ay coupure signal yenn organ de presse doon na pàcc bi nga xamante ni askan bi ñu fekk ca place de l'indépendance àdduna ci. waaw di ko ñaaw la parce que information lu lu nit di war soxla la parce képp kuy dund rek. sedd na war nga war nga bëgg ñu informer la ci lu lépp la réeré lépp lu la réer bëgg nga ñu informer informer la. ak vu la situation que nous vivons man jàpp naa ne du yoon sama dëgg rek laay wax te nag jaaxal xaq dëgg man du ci faral kenn bu ngeen tooñee dama ne a tooñ wante. droit de la presse dafa am. Aliou Ndiaye di kenn ci ñoom di xamle rekk li gën a bari ci interpellation yi ak pire de signal yi day fekk concerné yi li ñu def méngowul ak yoon. te xam nga soo récidivé chaque fois soo récidivé yoon day dal sa kaw aussi quoi c'est pas souhaité parce que tout média est suivi par une partie de la population te am na ñoo xam ne. Euh, ci média boobu rek la ñu sukkandiku. wante moom seetlu na rek li ni mel ci régime actuel bi lañ ko gën a nemmeeku. waaw su dee aussi dëgg rek la ñuy wax fekkee nañ si régime yëpp euh, régime bii nag actuellement. Euh, li ñu teg loxo ci ay journaliste dafa bari lool lool lool. jàpp nañ ni rek doon na li leen di xañ seeni droit à l'information. que man su ma xëyee taal sama euh, sama sama téléphone nekkuma sama kër mën déglu Leral TV wala ma jàpp feneen xam li xew ci réew mi l'information dañ ko soxla. droit à l'information nekk lu soxal askan wi loolu ci loolu ñi ñu fekk ville di xamle rek li nemmeeku ci presse bi doon na li leen arrangé wul ndax day restreindre lii di seeni ay xibaar di ñaax ñi di kureel yi omb taskat xibaar yi ak nguur gi ñi ciy waxtaan ba am consensus